du bokk gaa ñu doomu taal gémmiñ boobu bëgguñu ko woon dégg gaa yi ni ki dégg na doomu taal gémmiñ gi mun <laughs> doon wax kenn mais boobu temps fa mu ko jëlee boobu temps dëgër na uh-huh. fa mu ko jëlee dëgër mais léegi nag li am ba pare nii Ablaye uh-huh. da nga cee jël loo def avantage uh-huh. naka xam nga Sadio Mané kenn du choisir tàggoo ak moom comme lii la yàlla dogal da nga koy def avantage def ko avantage mi ngi ci waxtaan wi nga war a waxtaan ak jour yi. parce que joueur dana entraîné ba yaram wi yëpp pare. mais xam nga lu pareegul. bopp bi. te li ci bopp bi souvent entraîneur bi mënu ko ci def ay mbokkam ñoo ko ci mën a def waaw léegi point bi dafa ni un seul être vous manque. vous paraissez dépeuplé. un seul être. Mm-hmm. et tout est dépeuplé waaw ngeen dépeuplé. Mm-hmm. normalul. lul. Mm-hmm. Sadio Mané il est important beneen poète daal les cimetières sont remplis de personnes que l'on croyait indispensables la marche normale de la vie continue xëy na sax ñooñu ñu doon jooy tey jii fi réew mi toll mooy li ñu doon xalaat ko fa avantage Aliou aussi, daf ma mus poser une question Nous avons qualifié 2002 Nous daf ma habité il me dit Ablaye il paraît que avons gagné Maroc ma a une ay victoire d'étape chaque fois que c'est important c'est le Maroc qui passe. Hmm. Maroc daf ñu doon noggatu. am nañ ko ñetti une coupe du monde mu éliminé nañu ñetti yoon. Hmm. am na ci boo xam ne sax dem nañoo ak Palmas. Hmm. Espagne. mais comme nous n'étions pas de grands compétiteurs. on a accepté. FIFA jox ñu ay arbitres espagnols. monsieur Pentado. ñu gagné ñu 2-0 mooy bi ñuy dem Mexique. ma chaque fois que c'est important c'est le Maroc qui passe parce que boo ko temps Aliou

Abes Kaye Diop. da fay wax ak yow nga gëm ni tay bo jappé Brésil gagné ko. alors moo lan gëm lo xalé yi ni Sadio est important. même bu dee imam. bu fébré na yi mi dana am ku jité waxtu julli. do jël ben nit naan ka kaay remplacer que Iliman non Ismaïla Sarr non. bu ma tudd tout le collectif mo gëna important. le collectif le collectif mongolais important il y a des cas du genre dans le monde il y en a qui oublient que même si Pelé a gagné trois coupes du monde deuxième en 62 à waaw il a joué contre Tchécoslovaquie ki génn am benn a bu jóge ci banc bu kenn brésilien il li leen wax kii kan la Amarildo mhm. Amarildo waay kenn est ko et si Pelé n'avait pas été blessé du joué Qui kenn du ko xam kenn du ko xam il bi ñu am gannaaw suba am ku mel noonu nous avons nañu le pelé blanc c'était Johan Cruyff. Cruyff oui. y a un moment où sax ñu lay au nom de la moo football pelé. Mhm. am na ñu de la mhm. football pelé. Mhm. Hollande réinvente le football grâce à lui intellectuellement. Il a day mu 74. Hollande le mën dans le monde perdre la finale. finale face à l'Allemagne waaye. Cruyff fa fa 78. Argentine nous avons duma c'est comme tey jii bu Sadio Mané ni won du ma dem bu Sadio Mané ni won waaw lépp problème de sécurité là waaw dans sa famille. et comme intellectuel là mais demul. demul demul Hollande final. fa laa jëm. demul. Mhm. Hollande yi alors Hollande yi ñoo riñoo. daal di ni Cruyff a ses raisons. Mhm. mais il n'est pas plus important que le groupe. ñom ñoo riño ci sen bir mhm. xam nga dafa baye équipe bi finale 74. waaw groupe bi delloo ko finale 78. waaw sans lui sans lui. Mhm. Mhm. c'était une grosse victoire du groupe. Bo xam sax dafa xaw un tout petit peu rendre vulnérable Johan Krouf. Mhm. ak nak suñu boss bi ñuy parce que beut lu gis lu ko jege. ñun am nañ ko. Bruno Mersu mook choisir de se passer de Fadiga et de Salif Diao su fekkee ni jàmm rek la. rek la oui pour cause de carton jaune. Nous war affronter Suède sans nid il faut le faire. Nous ñëpp vraiment ragalon nañu équipe du Sénégal bu amul jao Salif jao ak Khalilou Fadiga. mu jëli Pape Thiaw mi yore loko yi tey. ak Amdi Faye ak Amdi Faye ñu doxal match bi dafa door ñu faté Salif jao ak Fadiga. dañ leen fàtte def match bu reuy bu rafet. Bruno va commettre l'erreur yalla ko yalla yërëm. Bruno va commettre l'erreur en quart de finale. contre la Turquie génn il est remplacé on dugal si waat alors que logique bi moo doon. équipe bi gagner Suède moom ngay reconduire. en d'autres termes Salif Diao ak Fadiga waruñu dellu si. Mhm. dañu war toog ca Bamba di nekk. Mhm. donc moo di boo a nit benn nit. Mhm. collectif bi moo gën important. et jour yi tey mën nga waxtaan ñoom waxtaan bu nga ni. essayer d'être important en l'absence de sa de de de de Sadio Mané. jéem leen important même su fekkee il est influent s'il n'est pas là le collectif est important le collectif est plus important mhm. mais eh, Raoul Diagne mhm. Mhm. Raoul Diagne le français bi tout. le sénégalais bi jiitu ci coupe du monde en 1938 Qui défend l'équipe équipe de France Ablaye ñu Abidjan 61 mais Toubab. il a parlé aux joueurs en Toubab, en bon Toubab. il joue au Racing Club de Paris c'est l'arrière droit de l'équipe de France qui va jouer la coupe du monde 1938 Cameroun bi dem Abidjan 61 Nous xam nga fu ñu uh-huh. Sénégal, stage. Bicotan, Sénégal uh-huh. c'est lañ un stage xam nga fu Cameroun en France tu préparer ou tu gagner des équipes de première division. Raoul leur dit on va limiter les dégâts contre le Cameroun il est plus fort. <laughs> le Cameroun est plus fort on limite les dégâts gagne, des déglu ko mu une équipe bu de personnalité. Hmm. Gagne, des déglu ko mu wax ba Badara Gueye Blé. c'est le grand frère de Ablaye Gueye capitaine de l'US Gorée. des années 70. Badara Gueye di et eh, gars yi réunion dans ma chambre. gars yi ñëw mun leen li rawul li rawul du oui Nous, teguwul. ñoo mën Cameroun li rawul wax du dëgg. ñoo mën Mansour Aladj Mansour Nous, ma nga ci këram di ñu seetaan. bu toogoon fii wax ci parce que ma nga ci délégation à l'époque Mansour Mbaye était le directeur le chef de cabinet de Amadou Babacar Sarr ministre des sports Mansour Mbaye am un doom bu tudd Soxaar kooku la ko Mansour Mbaye est ci délégation parce que dafa ànd ak ministre bi nit ñuy dégg ñu réunion joueurs c'est ci seen biir léegi joueurs yi li nekk ci seen xel bokkul ak leen entraîneur bi waxoon le match se joue le matin le match s'est joué le matin il y avait beaucoup d'équipes et peu de peu de stades 4-0 le Sénégal le premier Sénégal Cameroun de 1961 ko gagné Sénégal 4-0 nous sommes en 1961. 3 buts de Amadjaou, 1 de Malik Sissouri, le hmm. quatrième. 4-0. Alors que l'entraîneur, on va limiter les dégâts. Voilà. Nous allons limiter les dégâts. Le Sénégal gagne 4-0. Alors, nous avons dit, Wartan, Bignou nous avons dit, Wati, qui terrain, Bignou jouer. France, Bignou Kaïdo, 2-0. Général de Gaulle, Molen perdre. Bignou France, 2-0 en 63. Qui discours du général de Gaulle la Ablaye Thiam puiser. Mhm. les éléments y yi motiver motivé équipe de Gaulle les leen yéen a dem indépendance mun leen defar puso. africain yi y yéen a dem indépendance mun leen defar boîte allumette. xas bëgg dem indépendance. Mm. Ablaye Cham ñu dégg di de Gaulle wax. il y a trois ans nous étions français. Mhm. Ablaye nous étions français. Ben waaye dafa ni ma CAN yu jëkk yi 57 nous étions français duñu dem à la CAN. 59 nous sommes français duñu dem à la CAN. on est opérationnel pour la France et non pour le Sénégal. Mm-hmm. de Gaulle ni de Gaulle ni mënuñu defal Albert ni ñu defal France appelé Thiam ni leen dégg li général de Gaulle mm-hmm. on a la France aujourd'hui en demi-finale des Jeux de l'amitié Souvent les leen les français yi daañu gëm ni d'indépendance indépendance. Mhm. parce que ku gagner France war na de defar Pouceau ak Albert. Mhm. ci le but le plus rapide. en équipe de France après 20 secondes Sénégal mène 1-0. Nous terminons avec France 2-0. alors modèle di lan dafa am ay kàddu yoo xam bu Et mhm. ak tu te l'appropries pour motiver ton équipe. Moi, que euh, gëm naa ni mën am Sénégal Hollande équipe boo xamee ne ñun duñ ko par le discours pas parce que nous ligués mhm. par le discours dans la tête des gens qui ont <coughs> envie de jouer et pour ça, oui et pour prouver qu'ils peuvent exister. en l'espace de et pour le peuple sénégalais